jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saasune tey ñu ñëw ba fii salle de musculation bi nga xamante ni moo nekk cité Aline Sow certifié champion bi nga xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy booy Faye gannaaw mbër yi jël naa leen avant ndogu ñii jël naa leen heure ndogu après ndogu ma ñëw ci salle de musculation bi nga xamante ne fa lay entraîner bëgg a xool koor gi nan lay waajee ak lan la fas yéenee wax ñi nga xamante ne ñooy ay fan fansam rawatina ñi nga xamante ne saa su jugee rek ñu jóg ànd ak moom ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi fay maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa ngi lay fay sëñ jiili maa ngi lay ziar bu baax a baax di baalo ak euh, àdduna surtout Sénégal gi ñu dëkk waaw di baalu ak euh, bépp supporteru booy fay sama am di jàmm yëpp ak ñi nga xamante ni dañuy sonn ngir man di daj ngir man. maa ngi leen di baalu ci koor gi di leen baalu àq di ñaanal senegal yal nañ ko woor at yu bare bare baree baree bëri ci barke na Mohamed suñ borom musal ñu ci cat ak musiba ak balaa lépp lu ci doomu aadama ñaan rek suñu borom defal la ko ci barke Seydina Mohamed. Hmm. yaa ngi waaw ñu ngi woor ñu ngi ci koor gi ñu ngi woor bu baax a baax. daan nga def wooru gaal. waaw temps daan naa def wooru gaal loolu moom ku ne jaar na ci ndax syndicat laa defee. <laughs> daan defee noo daan defee woon. <laughs> waaw da daan dem géej sang ji bu ñu demee géej daal di jàdd syndicat xam nga rek fekk fekk foofu mango yi kii gaayen ñu daal di jël ay mango foofu làqatu di lekk bon bu defee gars yi naan sa waay dañoo wóor nii nangam ak nangam dugg na fii ku nekk ne su ma yeggee dinaa la boole sama yaay nii nangam ak nangam léegi su ko defee ki naan dañuy boole suñu yaay dañuy fexe ba mu lekk rek su lekkee ñun bu ñu lekk kenn du boole sa morom ñu da su ko def def wóor gaale def comme gars yi rek ba sëñ ci jàpp kay sama yaay woo ci jàpp waaw boobu dañu maa boole woon damaa demoon ba lekkee rek sama benn femme gisoon ma ma ñëw nekk ñëw na wax ko sama yaay bu yàgg ma ñëw heure ndog di xaar sama mburu ñu dagal mburu bu ndaw ma laaj ñu ne yow wooroo woon <laughs> sa mburu la fa demee woon quoi. ndeysaan am na ku jaar ci suuf. dëgg la waaw gis nga ma xam ne am na ko fa jaar quoi yàqal ma quoi ma xam na ko fa jaar yàqal ma. ak préparer lamb ak koor. yow xam naa ne amoo combat mais yaa ngi ci compétition yi saa su ne di wane sa bopp koor gi bu ñëwee yan façon méthode entraînement ngeen jël fas yéene di ko entraîner. waaw moo tax am na loo xamante ni moom boo ci nekkee danga nga koy jox ñi ko mun maanaam ñun ñoo ngi entraîner fii ci salle bi fii di nuyu coach bi fi ne mais man dama am sama coach sax sañ Fallou mooy sama coach di ma jàppale ci lépp ak sama copain bi Ahmed Ahmed Fadia man na ma fayam ñu ci jàpp parce que bi ma bi mu jubsee maanaam dañu jël lépp tegaat ko ci yoon wutaat coach yeneen coach yor ñu ko ci mel ni galas di ñu jàppale daal ñu changé waat méthode entraînement yëpp yëpp yëpp ñu ne ñu nii ngay entraîné nii la defee nii la defee parce que am na noo xamante boo ko entraîné ci corps surtout di préparer compétition yi ci ginnaaw yi ci kanam ak tamit nga boo amee sa lamb bu taxawee nga war a bëri yeneen ak yeneen yooyu wàcc sa kanam parce que ñun moom mooy li may daal di dem lu ñu suñu boroom jox ñu xam ne loolu la quoi ñun moom noonu la ñuy noonu la ñuy préparé ci làmb yi. mais dafa am lu ma seetlu mooy booy fay avant avant saison bi di ubbi dama gisoon nga yor poids bu bu bu sax yokk poids bu rëy saison bi ubbi nga wàññi poids wàññi poids bi lan la yow yaa ko yaa ko yaa opté wàññi poids bi wala sa sa sa sa entraînement moo baaxul. non nekkul loolu parce que xam nga lépp loo gis ñun booy fay dafa am staff quoi waaw maa ngi nuyu gars yi ci staff bi yëpp dafa am staff boo xam ne ñooy préparé ak moom. muy staff bi ñooy euh, mafia jege diit original booy fay waaw fay jege diit original ñoom ñëpp maa ngi seen gi am muy ay Ibrahima Niang sama mag Sall Ngaari Alain Ngom Baye Fall Ndambe depuis kanada euh, ak euh, Maguette ndooy Barcelone gars yi noonu ñëpp ñun bi ñu defee réunion daal gars yi waxtaan ñun suñu ay Doudou Faye ak Amet ak euh, Galas course bi ñu gis ni maanaam instant bi nii la ñu war a liggéeyee waxtaan ci ne da ngay def nii def nii def nii pour pour sa kattan gi bugg ci yow mu mun a yomb maanaam ñëwoon naa jël masse après ñu gis ma jeex lépp ci préparation bi la rek parce que li ñu naan man yoruma sama bopp dañoo jël dañ ma jël teg ma ci ay loxo kon ñoom ñooy xool li nga xam noonu nga war a bëree ñu préparé la noonu hmm. bi mujj avant Covid bi dañ doon gis Boy Faye mu koréas boo xamante ne bu duggee ci compétition gàtt gàtt day finaalu wala mu dem demi final ñàkk ñu gis Boy Faye boo xam ne saa yu ñëwee ci compétition yi dafay ñàkk ñàkk gi lan la. waaw ñàkk gi dañuy xam ne mooy li war a am rek gis nga àdduna moom maanaam ñun sénégalais li ci ëpp bëgg nañu sport mais mënuñu ko. maanaam boo xoolee euh, sur le plan international ñi fay ñi nga xamante ne dañ fay compétir. da ngay compétiteur boo xamante ne day préparer li muy préparer mu dem dix compétition perte lépp. après lu ci des mu commencé yaram bi di ñëw muy am ay muy jël di dem di jël di dem parce que ba léegi nii man maanaam jàpp naa ne liggéey naa li ma war a liggéey ñama ma daan ñaanal la may ñaanal fa ma daan dem laa daan dem dara changé wu ci. kon jàpp naa ne lu jotagul ci doomu aadama ne mais li war lépp maa ngi koy def gis nañ ne nag ñu ci bëri dañuy gis ni fay day foofu wala fay mais yaakaar naa ne ku bàyyi sa njaboot ginnaaw. bàyyi sa lépp ne làmb rek laa bëgg dem ci àll bi def fa temps bu yàgg yàgg di waajal sa bopp ci bépp bépp plan ci lépp loo xam yaakaar nga ni da may ndam rek mais kon yow nekkoo ku war a caaxaanee làmb ci ko parce que man lu ma am làmb moo ma ko may. kon man mënuma caaxaanee làmb quoi. ji li ñu jékki-jékki gis ni booy Faye compétition yi ñi ko ñi ñu njortoon ni sax waruñu ko mën a daan léegi dañ koy jàpp di ko daan lan la li nga waroon am. ci préparation dafa des mystique bi dafa des wala booy fay ci boppam dafa yëg nii dafa ñàkk kàttan ci boppam te yëguñu. non ñàkk kàttan mënut a am parce que ñàkk kàttan moom da ngay fekk ku bees a forme wala koo xam entraîné wu man période du Covid bi maa koy entraîné mën naa ne sax problème yi li ko gën a indi Covid bi daf ci bokk. parce que maanaam ñun fi ñuy entraîné toujours bay jàpp ñu ne dañuy ubbi làmb ji rek da ngay seetlu ni dañ ñaan dañuy tëjaat làmb ji. chaque jour ba bi ñu demee ba bi ñuy ubbi làmb ji boobu fekk na ñu ñu bëri nekk baisse de forme man mosuma bàyyi damay entraîner toujours parce que alay seetaanu ma ci muy Ibrahima Niang muy keneen ak keneen ñoom dañuy jël alal di ko fay saal miskila di ci def leen naan demal nga entraîner ji demal nga entraîner te boobu période Covid la mais ñoom xamoon na au plus ko ubbi yàgg yàgg yàgg yàgg làmb ji ko ubbi loolu moom moo ci nekkoon mais nag lu ci kanam raw li bët dañuy ñaan yàlla daal suñu borom def li ne ci kanam dàq fuuf li ne ci ginnaaw man fi mu ne nii xam nga lu may wax compétition bu ma génn soit ma jël ko wala ma ñàkk ko di sama kanam laay xool parce que xam naa ne yàlla baax na fekk leen tëjul ñi ngi avancé ci kanam lu bëree bëri dina gën a leer ci bëtu nit ñi quoi. te xam ne àdduna noonu la quoi au rek ci ci suuf rek. loolu dong la. Mhm. ñu gis arène nationale journée bi fa mujjee am euh, da nga da nga bëreeg Blindé am lu ci xew Blindé daan la ñu jox la ndam nga demaat Blindé dugal recours. ñu jox ko ndam li euh, mu mel ni kon dañ la génne par décision euh, parce que léegi boobu bi mu amee ban gis-gis nga ci am ak ban yëg-yëg nga ci am. waaw man moom demee na noonu ñu ñëw ñu ne ma non décision arbitre bi nee da nga def quatre appuis bi nga koy def li bi nga koy def waaw man leen ma ne garaawul dem tàccu gaa yi jël samay bagage génn dem bon dama gis ne arbitre moom c'est le maître lu mu xas a wax ne lii moom mooy am. moom mooy am parce que man mënu ma waxaata waxaata waxaat ba arbitre yëkkati victoire jox ma ko li ma mun mooy ma génn dem toog defarwaat jàppaat sama ñaambur nekk ca la ma nekkaatoon te xam ne bu jotee rek yàlla def ko loolu noonu laa def àndaat ak mbokk dem mais nag bi ma poussé ba mu yàgg comme li nga wax sànq am ñoo xam ne waruñu am ci man ndam dama arrêté boo xoolee dernière journée yi bëriwu ma loolu koy jaaxal na waaw dama arrêté toog lu tax waaw man dama am ay kilifa dama am ay kilifa quoi booy fay nekkul moom kese dafa nekk benn nit boo xam ne day tëb nii rek di tañax tañax di ba déedéet dama am ay mbokk am ay kilifa surtout suma waa dëkk waa Saalum gépp ak waa waa Fatick gi nga xamante ne nii fa suma baa dëkk waa Kër Mbangu Jaaw yëpp dañ ma woo ñoom ñëpp woo ma ne ma arrêteel waa ga waa Daaru Momar Xoreja waa ga waa waa Sanc Aliou Ndiaye. waxal wax ji li tax ñu na la arrêté kon bi ngay dem kenn ñaanalu la da ngaa jékki-jékki rek fëx dem. non non foogu ñu dem foogu ñu dem de jógoon nañ waaj ni ñu war a waajee sax defar ba mu baax ñu dem mais bi ñu demee nit di nga defar ba mu baax nga dem. nga dem commencé na ci compétition ma bi ak compétition bi doxee neneen nga xam ne carrément yow xam nga ne li nga liggéey li nga yor ñi ngay jëflanteel yoruñu ko mais booy ñàkk. da ngay taxaw àndaata sa ñu demaat ñu toogaat laaj xoolaat ñoom li tax nga laaj leen ne leen lan la lan la ko qu'est-ce qu'il a lu xew lan moo xew di nga xoolaat xam laaj laajte lan moo xew ñu toog loola nga toog rek daal di gérer de dem fenn di ci nuyu sama benn koo xam sama papa la sama ndeyaay sama lépp la borom mbelgoor abu kama ak waa xaar usaas waa marlooj sama papa jooju ju ma tudd turam mi ngi mar ñoom ñëpp dañ ma ne naa taxaw ma taxaw quoi ma seen bàyyi taxaw carrément di déglu rek ba ñama acca parce que toppoon naa fukk jeunesse xale laa may tëb di bëri ji di jéem ne non loolu yorul làmb te man tollatuma foofu ci làmb quoi foo xam ne damay ñëw ay folie di am ma continuer folie yi di dem ay folie di am may continuer folie di dem day mel ni man li may def kon man li may def fu laalu ma ko quoi wala tamit deuxièmement man li may def kenn nekkul sama ginnaaw damay jóg nii rek di dem di tañax tañaxi di dem booy fay moom kese mën na ñëw di dox di dem nii mais bul jàppee booy fay moom kenn kiy dox di dem li na ci ginnaaw bu doon nañ koo teg ci stade bi di xam ne kii am na ay mbokk waaw <laughs> voilà loolu la rek. daal Malika moom champion bu mag bi kenn du moom moom moom keroog bi mu ñëwee terrain gaal gi première sortem da koo këf jàll. Euh, ku ci mel ni caaka Faye moom it gis nañ ko Doudou Sané bi ngeen bëree bëri ngeen ñaari yoon saison daaw nga mu daan la aller nga daan ko retour waaye gis nga compétition yi li ci ëpp daanaka mën nañ ni moom moo ko jël léegi lan ban gis-gis nga ci am ñoom champion yooyu nga xamante ne ñoo jël compétition yi. gis-gis bi ma ci am daal mooy di leen ñaanal nit ku ci nekk loo jël jël na nga ko muurloo. li nga jël yal na la jik man dama leen di ñaanal ndaxte doomu aadama du lekk lu dul wërsëgam ñun ñëpp dañoo takkee suñu kër am ay mbokk ku nekk ñëw di wut si su yàlla dogalee am ñuy jël dama leen di ñaanal liin am yal na leen jik ci barki Seydina Mohamed parce que man daaw dama doon jël di ko tegale noonu damay jël jëlaat jëlaat may sant yàlla bu baax a baax kon su ma ñëwee ma débuté mu demee nii ma am neneen nu ma def day mel ni man gëwuma yàlla day mel ni man nekkuma doomu jullit quoi waaw nit ki jàmm ak pexem yàlla ak doomu doomu aadama da ngay dem rek wut li def li nga war a def mooy dangay ngay entraîné ñaanlu ci ñi nga war a ñaanlu question da am ndam ak ñàkk ndam loolu décision suñu borom la ndax ñun may nu suñu bopp dañuy waaj defaru comme ñoom ni ñuy tàggoo seeni i mbokk seen i wayjur ñaanal man noonu laay noonu lañ may ñaanalee ma dem su dee sama muur wala mu nekk li yàlla def mu nekk ci sama wërsëg dama koy jël yal na yàlla def moom muurloo ko mais ñi ngi fi terrain bee ngi fi ñoo ngi bëre ñi ngi ci terrain bi di compétir damay wax toujours ne bu kenn naagu bu kenn kañu tamit bu kenn neex la tamit ba la neex quoi. non dañu daje arène nationale nga jékki-jékki na nañ bàyyi waxantalu lu ñaaw yi nañ bàyyi defantalu lu yi parce que làmb jaru ko kii jaru ko mu mel ni am na message boo xam ne yaa ngi koy lancé kan nga doon lancé message boobu kan moo moomoon wax jooju. non man dama la yaa dama ne la xam nga am na yoo xamante ne nii naayisul du ma la tuddal turu benn doomu aadama. daf ci am mbër yi nga xamante ne nii dañuy neexle jénn ñëw ne ñi maa leen mën dagg ay saaga sànni leen ne ñi ay góor jigéen lañ daf ci am mbër dañ koy def du ci tudd turu nit ñoom ñooñu bu ñu seetaanee interview yi mbër yi may waxal ñoom xam nañ seen bopp. yan mbër du ma ci wax kenn dara lu tax ma ci tudd turu mbër mais mbër mu ci nekk fa nga toog xam nga ko du ma cité tur ku nekk li ngay nekk di wax wax bu bon ak wax bu ñaaw loolu baaxul. général Malika moo taxawal rek. tudd ma général ko wax tudd turu kenn. maa tudd turam général da ko wax. mais man tudd ma turu kenn dama la bëgg a wax ni. caaka da ko wax dama la bëgg a wax ni man. caaka da ko wax. ma la tuddal turu kenn jili jili turu kenn munoo wax fi ba ma tuddal. Franc da ko wax bilaay du ma la tuddal turu doomu aadama. ëppali da la ko wax mais déggoo ma la wax. làmb jaa ngi fi gaa yaa ngi fi terrain baa ngi fi nañ jëflante rek mais wax wax bu bon baaxul xamal da booy fay nag boo ne wax ju bon baaxul da nga naan diw wax na ma wax ju ñaaw parce que wax ji le fet que nga wax ko mooy am na lu la metti li la metti loolu faw nga wax ko Sénégal xam ko non non jarul ma koy wax Sénégal moo ko waxee Sénégal xam ko Sénégal lan lan lañ ma ciy faje lool du loolu du lu nit di wax dama lay wax rek ñoom dafa am lu ma leen di dénk pour ñu gérer ko ndax làmb maanaam bul la day tourner surtout simple simple dangay ngay daan nit tey bu subaa mu fayu da ngay daan nit tey bu subaa sembul bu fayu loolu leen newu ci moo tax ma ne la nan nan teey rek nañ def ndànk rek làmb ji moom su <laughs> mbaxalu xeer la nañ teey rek nañ def ndànk rek wax jarul làmmiñ bu rëy ak wax ju bëri nan doxal rek làmb ngi sunu kanam waaw di ñaan li ci kanam sunu borom daal di dogal lépp daal di neex daal mais yàlla baax na nañ dem daal li ci kanam rom xëy neex la ci làmb parce que boo xoolee sa diggante yaa ki nga xamante ni mooy euh, franc gis ngeen lu ci dem y may fekk yëpp ngeen di bëre dalay daan daan gi mooy lan dangeen di jàppante yéen ñaar doo ko mën a daan nga mujjeetee sa bopp wala la la la moo tax sa diggante ak Franc mënoo koo daan. mais la mooy ay ay comme ay Franc da ngay dem téye sa bopp mënoo ko daan mënoo ko lii mais leen la rek bëre la rek damay def muy def su ma defee su ma defee defaat mu bañ ma téye sama bopp làmb lool la rek làmb loolu kese la. lenn arbitre rek moo leen di tàqale mais yéen ñaar kenn du daan sama. arbitre rek moo ni tàqale waaye déggoo lu ma la wax moom bu ñëwee ta carrément def benn kele ñaari kele xam ne mënoon mu téye boppam. léegi xam naa man damay saraxe sama làmb dem def leen daanu kon man ñi ma ngemb dama leen yeb sax ñu ne sama ginnaaw dama leen yeb sax du ma ko def bëri ñaara koy def yow man yooyu nekkuma ci sax làmb ji lenn moo ci nekk de da nga ñëw taxaw def ñu ngay bëre may bëre li war a am am fay ñam war a ba mu bëre ñoom gis nga jël yi ni mu demee woon waaw ah, mais boo ñëwee téye sa bopp damay téye sama bopp du ma ñëw di saraxe sama bopp yooyu amatul parce que dama ko def ñàkk ci ñàkkaat ci bi ma demee ba xam ne lii la maa sama bopp su ñu bëree bëree waat nangul kii ma téye sama bopp rek ba am rek ñu xam ne lool la. li traditionnel bi foo ci toll coach yi ñu ngi lay contacter di waxtaan ak yow wala fi mu toll nii ba léegi Boy Faye mënoo am combat. ah bi gars yi ñu ngi ci man lekkoon naa avance jam production maa Cobra bi yàqu na. dama moom jëli na Jordan moom moom champion bu mag la. waaw moom champion la yàlla na ko yàlla defal jàmm moom waaw moom champion la. mais ah non jëlu Jordan de Jordan kee la am doomu dàngu. a ah. ah, am na ku ma dégg ni moom la jël de. yaay topp làmb de yaay liggéey ci làmb yaa yor micro boo demee ba xàmmeetoo ñu war a bëre kon man munoo maa wax leen loo xamante ne dama la ci. xam nga Cobra ku mu jël. waaw waaw man sama bopp laa xam. man man sama bopp laa xam <laughs> man Cobra Baara Ndiaye la jël. bu Faas. waaw. man waaw moo tax ma ne la comme yow mi topp làmb di liggéey ci laaw nga. dañ ko doon jox njaaxum moo njaaxum antuwul ñu jox ko Baara njaay moo tax Baara njaay boo génn sama xel bi boo tax. waa lool loolu loolu lépp dëgg la am mais am na ko ku jàpp doon dox di waxtaan ak moom. dañuy ñaan yàlla mu sotti rek waaw. limousine lañ doon dox limousine seen diggante taxawoon na. ba moom nee na buñ bu ñu amee date. buñ ko joxee avance mu jël mais du jël avance jàmbur tëdd ci jëmale suba. waaw moom lool la wax mais ñun garaaw ñu ngi koy déglu rek ñun moom ku mën a ñëwit ñu ñoo ngi toog ak suñu staff di leen déglu ak garant yi di déglu gars yi ku mën a ñëw baax na yàlla baax na ku ñëw rek ñu bëri. de kattan gi mu yor président Ousmane Sonko lay àndal de day lekk lu neex di entraîné ci saal yu mag yi yor xaalis di dawal oto. te bu la jàppee moom da lay firir. yal na ko yàlla defal jàmm xam nga booy fay xam naa booy fay booy fay moom amul millionnaire wala milliardaire mais am na ay bonne volonté mi ngi sant yàlla ndax am na ñoo xamante ni leen yàlla sédd ñu ngi koy bokk ak booy fay alhamdulilahi rabbil alamin euh, maanaam moom ak ku mu mën a nekkalit kooku duggul ci géew bi président Ousmane Sonko ci en buntu en cercle bi moom day dugg si biir Ousmane Sonko ñëwul de biir géew ba foofu Sonko Sonko li mën moom mooy may ko xaalis jox ko ca la mu yor dimbali ko ca la mu yor na ko booy bon courage lu mu koy dimbalee dimbalee ko ko ci mais mais Sonko ñëwul sax làmb ja moom mooy dugg ci géew bi ak ku ko mën a xettale ku ko mën a dimbali naka yàlla defal jàmm rek mu jël avance bi ñëw ñu dugg ci géew bi jëflante xool ñu xool quoi. ban ngeen bëgg a bëre bu bu jamee kee d'accord rek bëgg ban waaw manoom déggoo lu ma la manoom instant bii nii man dat bu ñu d'accord baax na mais moom yal na ko yàlla defal jàmm rek ba mu jël làmb ji yal na ko yàlla na jël làmb ji rek ñu bëri maanaam ba mu dee na confirmer loolu ndax góor sa wax ja ñu jëflante. waaw te dama koy sant sax di ko gërëm ndax moom bu toogee ba accordé ne bu ñu indilee maanaam bu amee dat ma nangoo moom sant naa ko ko ndax ñu ko fi jox bari na lool. waaw fay moom du xale kenn mën nga toog sa kër ñu la nga wax la neex ci fay mais yal na yàlla def mu taxaw sa côté bañ tëj barrière bi rek gaa yëpp rekki la ñu nag arbitre kese ci biir géew bi actuellement ni dañu gis ni cumuler ay contrat dafa ba dafa dafa xew maanaam benn mbër jël ñaari avance gis nañ ko ci Balla Gaye 2 gis nañ ko ci booy Niang gis nañ ko ci yeneen sampion yow beneen promoteur bu bëggoon jël sa beneen avance jox la est-ce que pare nga pour bëre. non man boo waxtaanee jam bi ma jot a yor avance am rek amul benn problème bu ngeen déggoo ci kàddu ñoom bu ñu nangoon déggoo ci kàddu ñoom ñëpp man boo ma joxoon cinq avance instant bii nii nii nii nii damay jël lépp la moo jili chaque jour maa ngi entraîné man mosuma fàttaliku fu ma toogee une semaine boo xam ne ci sama bànneexu bakkan damaa neex ma tëdd ci kër ga di nooyal mosul nekk. sa morom yaa ngi la fi bàyyi de ñu nga tollal catégorie ci làmb ngi dem bàyyi la fi de nga Diène Kaïré mu def gis nga Modou Anta la mu def te pourtant ñu ngi doon séentu Boy Faye ci moom ci ci boobu ba léegi gisuñu la fi de ñu ngi la fi bàyyi. mais poule boobu noo ciy duggee ku ma am ndey ku amul ndey la di duggee ci poule bi jili ñi jàq bëre ngi ci suufu saako bi ñu teg saako bi. mais ponk bëre ngi ci kaw ndaanaa yi génnewuñ leen wóor na yàlla yow instant bi làmb ji déggoo lu ma la wax jili làmb ji dafa am ñoo xam ne ñoo ciy bëri ci kaw ñun nii déggoo li ma la ñaara at fi ñu dëxëñ fa lañ ñu dëxëñ kenn du bëreeg ñun làmb ji dafa am lobby ñoo xamante ne ñoom ñooy bëri ñun dafa am fu nu ber nangu nu boole ci dara kenn koo joxi ne ko diw mu nekk fa di xool góos ak di wut ku ko dimbali non non gars yi dafa am lobby làmb ji amul ay kii nii nangam ak nangam loolu rek moo ci nekk tey jii nii ay jën ngay rek ñooñ ngay da làmb ji bu ñu ko tegoon ci yoon am na mbër yoo xam ne duñ génn première fun jëm fan lañ jëm danoo mën a daan kenn yow dan lay arrangel sa làmb jaaral la autoroute à jaaroo sa voie normale yuuxu la champion loolu yomb na ay champion rek la ci làmb ji laa la waxante ne bari na mbër ya nga xamante ne buñ jaaroon ci voie normale bi duñ dégg daal yi voie normale bi bu ñu ci jaaroon duñ dégg daal di laa la wax. yan mbër jàpp ni boo boo laale woon ak ñoom du jeex. waaw yow bëri na nga ne. yan mbër bëri na eh, yow Diène Kaïré mi nga wax Diène Kaïré xam nga sama combat kañ la yàq woon kañ la yàq woon te ñu waroon bëre jour bi bàcc waree bëre ak waaw jour bi maa ngi moo waroon bëre nit a jaar ci suuf yàq làmb ji. déggoo ma ne la làmb ji xam nga am na loo xamante ni ñi ngi may gis ñi may gis ñi may xam nañ ñi ngi may gis déggoo li ma la wax làmb ji nii dafa am ku ma am ndey ku ma amul ndey làmb ji dafa am fu nga ko jaarale ko tegee ci yoon am na ñoo xam ne du ñu du ñu siiw laa wax. doomu mbër la bàyyam mën na bëre bëri na ba tekki ngembam gis nga preuve yi nga xamante ni mu ngi koy def jëm ci kaw. champion wu làmb la gis nga bërki démb li mu def moo du am. naka yàlla defal jàmm champion bu mag la mbërum làmb la mais dama la bëgg a wax ni yóbbante galgal ubul làmb si nga gis nga lu sa bàyyi doon mbër doon mbër doon mbër bu ñëwee ci encercle bi lay yem ci bunt bi lay yem saa yi dañuy tëj barrière yi. wala déggoo li ma la wax. yéen kay kuñ tëj barrière mu jëflanteeg yow. waaw waaw mais looloo neex. jëflanteel du jëf xoo ci dalay dàq dóor la ay korosé ma nangul ko bu baax a baax mais nañ ko jox ak ñi mu war a dàq dóor leen korosé rek. kan nooy dàq. ah waaw. yow nga bëgg mu bëri na jël ay moromam. non yow moom du sama morom fi mu toll nii ah. jéem dépassé na la ci làmb. ah waaw baax na du sama morom du sama morom nag ci ñu bañ ñoo tëgg mais buñ ko essayé woon ñu laalandu nañ xam ne làmb ji teguñ ko si yoon <laughs> nañ essayé boole mbër yooyu rek ñu xool nañ xam ne làmb ji avance jën kay de nii nii nga jël. waaw yow mais yow ji li yow yow Eh, jëli mi lu ko dal yow làmb lu ma koy teree laa war a laaj lu la dal koy teree jël yow nim def moo du ànd bërki dem waaw yow mais <laughs> ndeysaan moo du ànd gis na làmbam bi ni mu demee li mu ci expliqué ni lamb ji demee ndeysaan dara dal demeewu ko non bëri na daanu champion la na defaraat ñëw bëre bokk ci compétition mais mbër moom saa yu daanoo am lay ah waa déet la mu wax ngi nii ci compétition yaa ngi génn ci compétition simple yi boo perte ne nañ maa ñaanalul ak damaa waajul ak am na eh, eh, mbër kay saa yu daanoo am la kaay ma la benn affaire man compétition simple yi heure ma bu ma ñàkkee damay ñëw ànd ak sama ngóor ñibbi man daanu ma ne fii di jooy di toj legen mbaa may siisoo ak def ay affaire defuma ma ko parce que ah yow jili yow yow nag jili jaxasekatu nit nga de man munoo man munoo maa jaxase àdduna <laughs> man def ma yooyu. yaa wax daanu toj leket bay laaj ku daanu toj leket bokk Sénégal. man dund ma loolu man déggoo lu ma loolu man damay ñëw ñàkk ci personnel may am damay am ci ngor su may ñàkk ñàkk ci ngor. xam nga xam ne dama ko ci ngor ma ñàkk ko ñàkk ko ci ngor ànd ak samay mbokk ñibbi mais am na yoo xam ne du ma ko def parce que xam naa ne liggéey naa li ma war a liggéey ñaanloo fi ma war a ñaanloo mais yàlla moo moom moom moom jaam bi di xool li mu nam ci moom mu def ko ci moom nammul may am ay ndam damay toog ba keroog yàlla di namm lim namm ci man waaw mais àdduna loolu la. ana Garga Mbossé. mboose waaw maa ngi koy nuyu au passage mi ngi États-Unis dégg naa bàyyi na bëre actuellement. wala boog pare na ci pour bàyyi bëre. ah loolu des na maa wóor de <laughs> loolu moo wax dëgg fa yàlla des na maa wóor en tout cas daal ñi ngi déggante ci jàmm mi ngi entraîné mbërum làmb la ba tey mi ngi waaj. mosoo leen déggante yéen ñaar mu wax la ni sama xel mu ngi ci bàyyi bëri. non yooyu. ak yow ñooy wax yooyu waxuñ ci yooyu moom wax dëgg fa yàlla waxuñ ci jiili nit la nit doomu aadama moom ku ci nekk yaa xam yaa yaay dund sa vie privée sama garant la mi ngi dund làmb dafa dem pour entraînement man loolu laa ci xama ah. ok loolu daal laa ci jot a xam. boobu nag mu ngi daw parce que Garga Mbossé pare que xel mi li ci nekk yëpp mooy bàyyi làmb bu doon bëgg bu bëggoon bàyyi làmb tey ñoo ne la Boy Faye dama bëggoon bàyyi làmb def ni grand frère am Zos def. xam nga Zoss moment bi mbër bi muy bàyyi làmb daanaka ñu ngi naan mu ngi toll ci fin de carrière wala mu ngi toll fi dooleem di jeexee bu ñëwoon ne la damaa bëgg a bàyyi bëre loo koy conseillé. non du ma ko conseillé loolu parce que Mbossé fi muy fi mu jóge woon di am lu muy dund dox ci làmb di dem di dem di dem di dem di dem ba toll ci buntu làmb fi nga xamante ni fi la làmb ubbeekoo carrément mu woon làmb ginnaaw. non loolu du ma ko nangu man bu fekkoon ne maanaam dama cee da dafay daf cee ak man lu mel noonu am su dafa am naa na ko grand frère bul bàyyi sama grand la nit ku baax dama naan bul bàyyi continuer parce que fi nga nekk nii nga xamante ne fi la buntu làmb nekk ut nga ko lu yàgg am nga ko mais dangay ngay rek mais gisuma di gestuwaat ci ginnaaw quoi da ngay avance ci kanam rek man loolu laay gis quoi parce que tey ji ni moom égirim actuellement ñun ni ñëpp moonu moonu yokk doole quoi ba yu bëree bëri ñu ko tey jii nii gis nga ni mu fa demee ah, maa ngi fi ah, Seydou Diagne ñaa booy bool Moussa Balla Gaye ak yeneen gars yeneen gars yi nekk ci ay biram ak gars yëpp ñu ngi fi tamit ah, ay tigo boo yëpp a ngi ci école bi di entraîné mu ne suma garant ñëpp na ci ginnaawam waaw ah, noonu rek la war a mun a demee tamit dama man dama jàpp ne daa entraîné ji pour del siwaat gars yi ñooy def ay rumeur noonu rek loolu laa jàpp quoi ma jàpp ni rumeur la rek. maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu neex ngénte ana Sira sama xarit bi. waa Sira mi ngi kër ga maa ngi <laughs> mooy loolu maa ngi gërëm bu baax di ko gërëm baax ndax nit ku baax la muñ kat la borom baax la waaw nit ku yaatu la. soxna mbër problème daa dafa métti dafa métti nekk ak mbëru laa métti na lool maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax baax mook sama bébé bi bébé aji <laughs> ak ndeysaan euh, wajuram mu jigéen euh, mama ñilaan ak mère ami maa ngi leen di siyaar bu baax a baax papa muy sama nijaay sama nijaay ñëw ba si ak yaay mi ngi saalum sama mag yi ko yor maa ngi leen di kontaan ci ñoom bu baax a baax ndax téye nañ ko niñ ko war a téye comme niñ ko téye woon fii ndax maire bi léegi mi ngi dem Saalum des fois mu ñëw fii xam la fa demee quoi maanaam di nuyu gars yëpp surtout waa salle bi Maguette Seck gars yi nga xam dañ nekk ci salle bi surtout sama coach bi Galas day bàyyi temps am yëpp ma man nga sax Ahmed day sonn ci man Sall Ngaari a Niang waaw Babacar Alaaji Borom Asalem Baye Fall Alain Ngom bàyyi nu ak Aïcha moom sama garaal sama lépp la Maguette Seck waaw Maguette euh, euh, Maguette Ndoye borom borom borom euh, borom Barcelone Maguette Seck mii grand bu baax la moom mooy loolu booy ñaa daf may daf may conseil bu baax a baax a baax a baax mooy loolu noonu. di bëggee gars yëpp nag waa ginnaaw raay aw ma seen fay ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee waa Pàcc naajo bi yëpp waa poste Thiaroye kullukum fu supporteeru booy fay nag maa ngi lay sant surtout waa Saloum waa Kër Mbangu Diawo. daaru kër Momar Xoreja maa ngi leen di siyaaru bu baax sanc Aliou njaay maa ngi leen di bégee waa Medina Salaam maa ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax surtout waa Mbelgoor Jilaxaar waa Marlo gars yi maa leen di bégee daal aw ma seen fay maa ngi siyaar ñëpp ñëpp ñëp ñëpp di bégee na jaag mi nga xam ne moom moo defar équipement yi may sol nii waaw moom moo defar fay jege diit original waaw logo bi moom moo ko def fan si yëpp ñu ngi fay dem di defar ay t-shirt di sol muy rafet quoi waaw noonu la fa demee maa ngi lay bëggee yow di bëggee waaw sa kewara waan bi <laughs> borom bëgg bëgg taar moom kenn du moom sëñ Basiirou borom baax la <laughs> yow kenn du yow dangaa saay saay rek waaye kenn du <laughs> kenn du mbokk yi booy fay la woon dégg ngeen lépp loo xamante ni ut na ci làmb parce que saa su ne rek may dégg dama jëli booy fay demal jëli booy fay parce que li ñu buggoon xam mooy booy fay ci lan la nekk lu ci bari xew na ci ci lan lay taxawaay yan taxawaay làmb mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci euh, xew-xewu làmb di leen jaajëfal di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqalikoo ba ëllëg daa am loo bëgg waaw waaw waaw sa benn ganaar ak moom ko doo koy beral yoo waaw Serigne Sali Baye Fall Ndame borom Canada kooku moom <laughs> sama waay la sama gaayen la dañuy waxtaan ni muy nit ko baax a baax a baax a baax a baax a baax